waaw salaamaaleykum mbokki téléspectateur yu yoof TV ni ñu leen ko waxee woon rek ñu ngi ci téléthon bi nga xamante ni ñu ngi koy def ngir askanu Yoff ngir lépp lu ci rot rek incha allah ñu dellowaat ko ci biir askan bi waaye suñu doomu ndey di lébu di suñu wayjur di lépp ci ñun di doomu yoof tamit ñi xam bokk gi su ma nee doomu yoof la dinañu xam ne doomu Yoff la muy grand Serigne Abdoulaye Makhtar Diop. wax dëgg yàlla mu def ndimbal lu am solo ci téléthon bi am te moom la Yoff organisé yëkkati une tonne ceeb. ñooy may ko waay waayof ni man jël naa ko def ko ci wax dëgg yàlla ñu koy remercier di ko ñaanal yàlla lu mu man ren bu déwénee yàlla man lu ko ëpp waaye loolu lépp nag dafa am loxo yu mu jaare te ku santul nit doo sant yàlla kon loxo yi mu jaare faaw ñu sant ko ni ko jërëjëf muy saltige Mamadou Mbeng xamante ni relation ak grand moo indi lii tey jii nii wax dëgg yàlla ba mu yónnee teraanga ji yof kon Mamadou Mbeng ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal yàlla yaa xam ne nga bëgg yàlla na ko yàlla defal ñu bàyyi la rek nga wax say wa euh, li nga ci sànni bu ñu pré vice président APEX mu ngi fi tamit di Moulay Abdou Aziz Thiaw momit wax deug yalla ñu jox ko tamit mu ci ay kàddu. merci Ndiaga Issa salaamaaleykum ma ngi nuyu mbokk Yoff yeb di nuyu Yoff TV ak téléspectateur téléspectateurs yeb di nuyu vice président apexi. tay nak liñu fi andi moy téléthon bi nga Yoff TV organisé won ko ànd ak ak maire bi ak imaam yi ak kilifa dëkk bi yëpp ah ñu waxoon Ablaye Matar grand sëriñ de Dakar comme yàlla dafa dogal maay jóge yoof di ka fekki fii waxoon ka njaboot gi ñu ngi ñaan ndimbal pour dimbali njaboot gi waaw ah, mu waxoon nañu dinañ fi yónnee tonu ceeb waaw ah, loolu nag lañ ñëwoon tey mu envoyé ñu ko ñu an ñëw tey fii si kër APEXI di ko jox commission bi nga xam ne ñoom ñooy saytu loolu ñaanal ko yàlla comme lii ko njagay sa waxe yàlla na ko yàlla jàppale lii nag farata si moom daf ko war a defal yoof ngir yàlla ak yu bari comme ni ma ko waxoon ci plateau bi benn ay maamam fi lañu jóge ñaar mooy ñun ñi nga xam ne yoof lañuy jóge nekk saltige yoof mu dénk ñu village lébu yi beneen bi mooy Ablaye Diouf Sarr ndijaay jarbaatam la kon li farata pour mu def ko kon dëkk ñu ngi koy ñaanal c'est vraiment xam naa ne mention spéciale parce que don yi dañ jox cent villages te xam naa ne ku am sa moitié tonne kon ñu ngi koy ñaanal yàlla jàppale ko ñaanal dabba ñaanal ñaan feebar bi nga xam ne tax di laaj lii yàlla Sénégal jeexal ko Afrique dégg jeexal ko si te ñaan yàlla liñ si joxe di sant TV may ngeen ñu bunt boo ku si ne man nga def li ngay def ba pare wax sa wóllëre a si jàpp di ñaanal ñëpp di sant ñëpp di ñaan yoof yàlla fi yàlla dolli jàmm ñaan lii yàlla na yàlla gën a saxal si yoof mooy solidarité depuis suñuy maam suñuy bàyyi looloo mas a am kon ñu nit bu ñu doon na pousse bi mu wadd si ñun ñu ngi leen di ñaanal di leen sant di ñaanal Yoff TV ak yéen ñi nga xam ne yéen nekk personnel bi yëpp yàlla na leen yàlla sàmm defal leen kàttan allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki yoof ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di yëkkati kàddu ndëkk si turu si à plateforme bi nga xamante ne ñoom ñooy saytu euh, téléthon bi euh, di rafetlu vraiment li nga xamante ne mooy teraanga bu ñu jot mu jógee si Grand Serigne de dakaar yàlla jaarale ko si saltige Mamadou Mbeng ñu leen di ñaanal yàlla yokk seen wërsëg ak seen fan gis nañu seen yéene ci askan wi euh, te vraiment dige bor la aussi sàmm kàddu ci jamono ji dafa jafe donc bu ñu gisee kilifa joxe kàddoom ci kanam askan wi yépp tey ñëw mu matérialiser que indi li nga xamante ne moom la dige woon dañ ci am fierté parce que ñun ñépp ñoom ñu bokk yilif donc loolu dañ koy rafetal dañ koy rafetlu Euh, di wax nag si turu vraiment plateforme bi ñu ngi koy wax sànq si tàmbali euh, tey maax suñu naataango monsieur le maire Abdou Naar ñoo fi waroon taxaw mais dafa nekk si ay xat-xat moo tax ko mën la sama tànk gën a oyof ma ñëw fii pour nangu vraiment donc une tone bi nga xamante ne euh, saltige an annoncé woon na que si turu Grand Serigne de Dakar donc vraiment di ñaan li nga xamante ne mooy mbas mi yàlla yemale ko fi di si profiter aussi di gën a tàllal loxo. population Yoff yëpp gis nañ seen xërte ak ni ñu jàppee ci mbir mi parce que bu ñu wootee ñetti fan dajale ci fi ñu toog lu tollu ci 7 millions à lu topp euh, fas yéene que continuer samedi incha allah dimanche donc loolu dafay wane rek seen xërte ci def lu baax te loolu moom dañuy ñaan sunu borom mu ka di gën a tàllal nit ñi ah geste bi defe naa appel appel pour ñëpp. ku lu waay am rek lu waay man parce que yalwaanuñu déedéet dañuy dajale pour delloo ko suñuy ñoñ yi nga xamante ne dañu nekk ci ay xat-xat te xat-xat bi ñëpp xam fi mu jóge donc loolu daal lañ amoon si kàddu yu ñuy yëkkati di remercier grand serigne de Dakar à travers ki nga xamante ne moo ko fi teewal di saltige euh, Mamadou Mbeng di ñaan yàlla feebar bi nga xamante ne yàlla daf ko fi wàccee yàlla yemale ko fi di ñaanal ñi ñu séqal plateforme bi yëpp Yoff TV euh, commune bu Yoff yàlla gën leen dëgëral APEX yi ñu ñu àndal di liggéeyal yëpp ak kilifa yi fi nekk yëpp yàlla gën leen dëgëral allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim